Merci et très heureux de vous retrouver comme chaque matin ci euh, Week-end Start. On démarre merveilleusement ce week-end di leen gërëm bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun on a démarré avec ce euh, très belle vidéo de Kumba Gawlo Seck euh, tekk gi bi nga xam ne quand même ça fait le tour du monde euh, bi ñu seetloo ki dem rek ñi ngi koy gis ci euh, réseaux sociaux yi ci YouTube bi euh, en même pas une semaine mi ngi def un million de vues donc ñi ngi koy encouragé waat bu baax a baax mbégte la ñu àndaat ak yéen comme chaque samedi bu ne ci Weekend Stars comme d'habitude je ne suis dina ànd ak ñi ma ciy àndal mais aussi di gërëm bu baax a baax a baax équipe technique bi nga xam ne ñoo ñuy gunge et puis tout à l'heure dans quelques instants euh, les artistes vont défiler sur ce plateau pour andi seen ay actualité waxtaan ak ñun ci li nga xam ne mooy seen li mujjee génn euh, que ça soit album ou vidéo loolu yëpp dinañ ko waxtaanee di gërëm bu baax également jamono ji ñuy wax a yéen nag euh, bëri na ñoo xam ne ñi ngi jëm si koor yi voilà ci màggalu euh, borom daaru boobu nga xam ne tey la ñu ko wootee euh, sama waa ji Ababacar mi ngi fa tey euh, Aba moo tax tey sax teewul ci plateau bi voilà moom mi ngi foofu tey ngir gunge ñu wala sax teewal ñu foofu nga xam ne moo di daaru ci màggal googule comme d'habitude c'est toujours un plaisir di ànd ak moom la très belle charmante des fois ma wooye ko yaay des fois ma wooye ko grande sœur des fois ma wooye ko sax turam voilà Mado toute belle comme d'habitude ravissante salaamaaleykum c'est un plaisir de te retrouver ko waxee rek man aussi c'est un plaisir partagé euh, di nuyu mbokku téléspectateurs yi ku ci nekk seen tur seen sant comme ni ñu koy waxee saa su ne mbégte lay doon ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo di weekend start le samedi ànd ceeg ñi nga xamante ne moom moo di la team comme on le dit le plus souvent indi li ñuy naan utile ndax lépp loo xamante ne information la bu leen di soxal lu jëm ci wàllu culture dinañ leen ko tegal waaye agréable ndax son yi nga xamante ne dañ ko ci wane pour bëggal leen rawatina nag éléments yi ñuy dem di leen di defal saa su lépp nag pour ngeen gis seen bopp ci télévision télévision Futur Média voilà c'est euh, mooy seetu Sénégal comme ni ñu koy waxee euh, bu ngeen si xoolee rek gis seen bopp raison pour laquelle ñun aussi euh, ñu am le plaisir heure bu ñu yeewoo di leen gunge ci li nga xamante ne nii moom ngeen gën a bëgg ci wàllu programme durant toute la semaine on vous accompagne ci ay programme yoo xam ne bëgg ngeen ko mais bu ñu ñëwee ci week-end bi ñu changé nag voilà parce que boo naa ne day baax nga passé un bon week effectivement moom la yenn naan tey di naan léeg-léeg dañuy soxla tuuti mbéeraay li nga xamante ne moom moo week bi ndax ku xam li nga xamante ne moom moo di semaine c'est très lourd c'est très pressant il la pression daw liggéey lijjanti et tout ça donc jot na li nga xamante ne moom moo di week bi rek nga bégal sa bopp def ay neex-neex donc je pense que looloo tax tamit ngeen gën a teg li di euh, week-end start alors loolu nag euh, dafa bokk ci euh, ni ñu démarré cette année 2022 avec la star planétaire Youssou Ndour ginnaaw bi ñu defee ay événement yu mag ànd ak yéen ci lu mel ni Dakar Arena moom xam na ni daf leen wara a gunge durant toute cette année mm-hmm. Euh, euh, ren nag ñu décidé woon euh, dem Bercy te ba tey dañ koo décidé balaa Bercy bi ñu ne woon dinañ fiy def ay événement démb jot nañu xam nga Youssou dafa bokk ci ñi nga xamante ni day bàyyi xel mm. lool lu Sénégal climat bi intéressé ko mm. doxalinu réew mi intéressé ko mm-hmm. lépp lu muy def day sorale son public parce que mm-hmm. xam nañ ni heure bu wootee ngeen wuy si ko mm-hmm. dañu waajoon nag le 26 bi ñu jëmoon fii ci si CCS parce que xale yi namoon nañu CCS ak Youssou Ndour mm. finalement on a reporté nañu benn annonce communiqué bu très professionnel euh, jóge ci euh, Super Étoile Management euh, wax ci li nga xam ni moom moo di événement boobu en raison yi nga xam ne li ko waral nag mooy climat bi ni mu demee jamono ji mm-hmm. gis ngeen ni bëri na ngelaw mm-hmm. bëri na poussière mm-hmm. te sécurité loolu yëpp daf ciy bokk yu su décidé pour reporter cet cet événement Amado effectivement comme ni nga ko waxee rek donc je pense que moom dafa nekk kenn koo xamante ne jiitalul nafsoom ci li muy liggéey pendant très longtemps mu nekk nag un grand acteur euh, culturel comme ni ñu koy waxee waaye comme li ma ko waxee sànq rek que moom li ko gën a soxal moom moo di askan bi mhm. donc ce qui fait que tout le temps booy jàpp date baax na nga bàyyi xel ci li nga xamante ne moom moo di environnement bi baax na nga jàpp dat ci li nga xamante ne moom moo di euh, fi réew mi toll fan la donc en ce moment on voit il y a une épidémie de grippe on a vu aussi que le climat il hyper changé je pense que loolu sax kuy seetaan le temps les émissions de Yacine chroniqueuse mi jëm ci wàllu alam bi daf ko ci wax saa su pense que c'est une belle décision waaye il reste toujours ki nga xamante ne moom moo di l'homme incontournable de la musique sénégalaise macha allah c'est tellement partagé Salut. hier bi ñu yëgee ni que Youssou euh, dafa reporter cet événement mhm. euh, euh, bokk na sax ci statut wala yenn plateforme yi ma ko njëkk a xoolee bu Samira démb bi ñu gisee ni que Youssou a reporté parce que xam na ni moom moom waaw moom xam nga ni kenn du ko fa jiit lu mu sonn sonn sonn day bëgg a dem voilà moom aussi mi ngi ak ñun sur ce plateau euh, ni ñu ko ubbee mooy euh, report bi nga xam ne def nañ ko ci événement Youssou bi ñu bàyyi leen ak Samira déjà mu nuyu leen miin ngeen ko euh, ci plateau bi samedi bu nekk ñu gunge leen bonjour Samira Bonjour Kals, bonjour Mado et désolé du retard pour les téléspectateurs yi ñuy seetaan donc c'est toujours un plaisir ñu leen di euh, jox le grand rendez-vous. dama bëggoon wax gars yi tardé woo da nga doon nekk ci ginnaaw. non dama tardé nag tey moom tey moom jàmbaar dafa daanu dama doon tardé. et aussi euh, embouteillage et tout ça donc loolu moo tax donc maa ngi leen di nuyu fépp fu waay nekk di leen ziar di leen wax ni bienvenue ci seen euh, émission weekend start weekend fun weekend non stress et tout ça donc y aura pas mal d'invités mais aussi demoon naa seeti ndaanaan comme ni Mado demee seeti ndaanaan. voilà suite. <laughs> alors li ñu doon léegi mooy nouvelle bi jot démb ci euh, port bi comme je disais tout à l'heure Youssou c'est un artiste boo xam ne day bàyyi xel trop public mhm. euh, ci climat bi ci condition yi ci sécurité bi raison pour laquelle ñu reporté ko à une date ultérieure. suis uh, I'm so sad hein je vais pas vous l'avouer je suis un peu triste parce que ku ma xam-xam. waaw ñoom. <laughs> Uh-huh. juste pour wax leen elle avait préparé une belle chorégraphie loolu rek ku jàpp nag. <laughs> non mais juste pour ça sax man ku ma xam-xam ni euh, ñoom Awa Gueye sax dañ ma ko wax ne nañ ma yow Papa Youssou rek moo la mën a loo ma leen effectivement Papa Youssou damay génn pour décompresser et tout ça donc ça fait plaisir may génn di di enjoy musique am parce que dama bëgg ay musique Youssou Ndour mm-hmm. mais non seulement tourisme mais aussi c'est pour des euh, conditions climatiques mm. aussi donc juste pour vous dire que Youssou mi ngi euh, sóoraale li nga xamante ne mooy ay fansam mais Youssou bëgg na ay fansam de yow. lii xalaat conditions climatiques et tout ça loolu mosuma ko gis de toute de toute ma vie. <laughs> donc moom aussi. c'est ça euh, qui montre que c'est un ambassadeur. en fait exactement mm. l'annonce a été très professionnelle. Mm-hmm. et puis wane li tax ñu reporter cet événement mais jeexagul parce que on sait que on est en train de préparer le euh, Bercy ah de Youssou Ndour en mois de juin. Mm. voilà mmh. juin dañuy demaat Paris. Euh, euh, déjà euh, démb rek maa ngi jot ay information ci plateforme yi nga xam ne parce que ubbi nañu ticket yi d'ailleurs. Mmh. commencé nañu jënd place yi et xam ngeen Bercy ni mu toll. Mmh. pour am presque la moitié de la salle nit yi commencé nañ ko jënd. foofu ca Bercy parce que c'est un événement pour l'Afrique pour le monde entier. d'ailleurs am na benn single boo xam ne dinañ leen ko dégtal dina disponible teaser bi Pape Samba bu fekkee baax na bëgg naa ñu seetal ko tuuti rek teaser bi nga xam ne mooy annoncé le single officiel du. plus grand bal pour l'Afrique. Regardez. c'est le grand bal pour l'Afrique voilà Youssou Ndour vous donne rendez-vous Bercy euh, moom yaakaar naa ne ñëpp a ngi koy waaj. voilà c'est le rendez-vous de, l'Afrique et du monde. effectivement comme ni nga ko waxee fekk na fexe na ba bokk ci li nga xamante ne moom moo di le calendrier culturel euh, ba sa su ne saa yuñ ko dëgmalee wala saa yuñ ko euh, jàppee rek nit yi dañ koy préparer et comme il se doit te moom comme ni mu koy waxee toujours il met l'utile à l'agréable parce que gis ngeen ni la dernière saison ba mu ko kii génne woon na ay ca leen ñu dem Bercy donc cette fois-ci encore mu créé waat beneen single boo xamante ne pour waajalaat li nga xamante ne moom moo di le 18 bile li ñuy ñaan rek sunu yóbbu ci ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam dundaat li nga xamante ne moom moo di mbégte bi ñu doon dund surtout côté économique bi man parce que vraiment gis naa ne day doxal réew mhm. mais réewu jàmbur ca nasaraan ya fële donc je pense que lui ovation et vite vite vite au 18 ba pare nag man ça tombe le jour de l'anniversaire de mon ah fils là, là, ah là, ah oui mais vous savez quoi léegi nag dañuy réunion suñu biir ah. <laughs> papa Youssou seetaanul Birane seetaanul Bouba seetaanul Ndiaga seetaanul il faut ñu réunion suñu biir man ku ma xam-xam euh, nga xamante ni mooy solennellement <laughs> comme CICES euh, bi ça a été annulé pour des conditions climatiques <laughs> donc man moom xam nga ni foo ma Bercy euh, pour mën a ambiance pour mën enjoy parce que mm. damay dund li nga xamante ni mooy musique euh, Youssou mm. et puis aussi les Parisiens se donnent rendez fi nga ah xamante ni mooy Bercy mm. mu donc je pense que ambiance Bercy dafa ah, neex non non non tu peux même pas ah, imaginer benn de toute ma vie benn mais je me suis ñoo xam ne sax buntu Bercy moo leen gënal biir. mais c'est ça parce que rencontre bi. daje bi les retrouvailles effectivement retrouvailles voilà. ñëpp jóge ci ay dëkk tu vois ñiy jóge ay Suisse ñenn ñoo xamante ne sax dañuy jóge Afrique c'est vrai mm. mais Europe ñëppay ñëw rencontré wu gisante ba pare nga gis ku ci nekk indi dara di daan wërsëgam di jaay mm-hmm. ñëpp ñëw. bu il faut nga dund ko pour nga xam mm-hmm. émotion boobu kenn moo koy def benn nit rek di macha allah di doomu réew mi di doomu Sénégal donc je pense que vraiment c'est une fierté te li ma ci gën a retenir ndeysaan y a une année comme bitim réew d'habitude il respecte trop les timings bi soirée bi waree arrêté ñu ne ko non arrêté mais tu vois mouvement salle bi uh-huh. ñëpp jóg ne ko bis il a été obligé de dire même si je dois encore payer beaucoup mmh, d'argent mmh, mmh. laissez-moi madame le maire continuer parce que je dois donner du bonheur à ces gens qui ont quitté beaucoup de pays pour venir assister exactement man loolu sama c'est ça comme on euh, dit euh, c'est l'homme aux trois générations mhm. suñu yaay yi dañ koy enjoy mhm. suñu mag yi dañ koy enjoy mais nous aussi la nouvelle génération dañ koy enjoy mu nekk euh, Youssou Ndour boo xamante ne Youssou Ndouru ñëpp la nañ ko nangu rek Youssou Ndouru xale yi la Youssou Ndouru mag yi la donc voilà man j'adore plus ces rétro comme j'ai l'habitude de dire <laughs> donc rendez-vous baa ngi noonu bàyyi leen ci xel <laughs> ni ko Pape Samba di waxee voilà donc bu jotee rek ngeen xam ni jot na ñu naat ci dem incha allah ak Youssou Ndour Paris Bercy le 18 18 juin un événement à retenir et puis ñi nekk bitim réew surtout diaspora euh, teel leen a réserver seen ay billets parce que déjà commencé nañ ko euh, te ci ëpp sax jënd nañ ko déjà waa Sénégal laa xaw yërëm nag parce que ñoom dañu mën dernière minute damay ragal nga jënd billet dem ba Paris te dugg ci biir salle bi loolu moom dara jaru ko donc teel leen euh, réserver seen ay billets dinañ ci ñëwaat ci kanam incha allah ci Bercy boobu nga xam ne Youssou Ndour mu koy waajal ñu recevoir leen dans quelques instants mais dañuy tàmbali nag ak rubrique yi nga xam ne ñoo leen ko tàmmal suñu jigéen ñu jàmbaar yi ku ci ne ci ñoom euh, ba ci man mii sax démb génn naa voilà démb génn naa kay voilà démb moom am naa am naa jomu génn tuuti am ku ma seeti mais bon en attendant dañuy démarrer ak Mado mi nga xam ne euh, tàmmal nañu rubrique boo xam ne mm. dañ ci découvrir ay ndaanaan mu xam jigéen wala mm. góor mais surtout jigéen ñi parce que on est euh, toujours ci mois de mars bi mm. euh, ci lan nga ñëwoon tey euh, wala lan nga kan nga seeti ji woon ma Mado voilà comme ni nga ko waxee nag depuis tout à l'heure c'est Abba qui sonne dans ma tête mais ci sama xel <laughs> ak ci sama gémmiñ bi non non non kii daf ñu toppee mboor Calze voilà donc Calze comme ni nga ko waxee rek dañu doxantu waatoon comme ni ma koy waxee c'est l'histoire qui continue di leen di fàttali rek juste pour rappel que dañoo àndoon taseloon ak benn jaaykatu ataaya ci dox ñuy waxtaan ak moom ba ñu boobu ba mu boolee ñoog benn soxna boo xamante ne dafay yëngu ci wàllu li nga xamante ne moom moo di design wala couture bi ñuy ànd ak moom nag di doxantu pour yóbbu li nga xamante ne moom moo di livraison yàlla dogal ñu paan bi ñu paanee on nous a mis en rapport ak kenn koo xamante ne mécanicien la ci noonu laa ko woo jot ko mais ma am une très belle surprise je pense que surprise boobu laa bëgg bokk ak yéen bu ma ñëwee nag ma gën leen expliquer histoire boobule naka la demee. kañ nga dugg ci mécanique bi. Euh, mën naa ne 2014 laa commencé formation bi pare 2018. Mhm. ba ba tey nag vraiment maa ngi ci. Mhm. di góorgóorlu. déedéet kay. Mhm. donc lenn loo xamante ne da ko jàng la ba mekkal ko quoi. voilà waaw dama ko jàng école. pratiqué ko aussi. ma nekkoon ci ay garage mel ni ay EMG Gémence Ama yu ci bëri jaar naa ci stage. nekkoon naa total aussi. après nag port nag laa yàgg na yàgg nag. foofu laa nekkoon comme chef d'équipe de garage durant deux ans. 15 janvier 2021 la ubbi fii nii. ah ci nga ubbi fii nii. Ah, waaw mais am na ay am na ay comme ay góor. ay à peu près ils sont une ñaata nañu. donc j'ai euh, trois filles. waaw non j'ai deux filles. Uh-huh. et euh, cinq garçons. macha allah comme laveur et mécanicien. ok te ñoom ñëpp yaa leen di daggal salaire ak yooyu. bon message yu ma leen lancé mooy aussi bon boo ci nekkee aussi di góor da ngay góorgóorlu tu aimes déjà le métier. Mhm. il faut aimer le métier parce que mécanique dafa nekk loo xam ne boo ko wul doo ci am dara. donc c'est pas une histoire dama sol tenue da sol euh, sécurité rek maa ngi gondi jigéen laa non non dañ ci nekk. yàlla daal moo ma dimbali may ma mhm. vraiment mhm. jëkkër bi ma comprendre ci sama liggéey rek parce que mhm. c'est pas évident parce que man lundi ba samedi damay liggéey dimanche rek laay noppalu te aussi fii lavage bi day tijji donc damay coordonné ak sama laverie ak yooyu parce que lavage bi dafay tijji dimanche ma les dimanche lañuy gën am na gën a ñëw di raxaseeg seen oto donc boo amee xaalis wala nga depuis ba ngay fayeeku ak loo mën ci am parce que lépp aussi ñoow la ñoo la ci tàggat may la jom ak mu fay da yare la noo xam ne ñoom nekkuñu fi mhm. yaa góor góorgóorlu ba yàlla may la lii ba sañu xam ne deniment bu jotee sax di nekk fi di lekk sa njëriñ di la ñaanal affection bi aussi des fois day manqué ngay gis des fois ko xam ne saan day bu kiwee rek day woo yaayam ñu waxtaan ci wàllum ci wàllum liggéeyam ci wàllum àdduna loolu aussi ñun moo ñu manqué quoi même acca lii la wax ni euh, góor baax na jigéen baax na mais surtout bu ñu leen fekkee ci ay métiers yoo xamante ni tàmmuñu ko woon ci moom euh, ci ñoom muy jigéen ñi euh, je que ça c'est c'est c'est émouvant mais dafa dafa neex gis jigéenu jàmbaar ju mel ni Mado effectivement Kalsa comme ni nga ko waxee mu nekk jigéenu jàmbaar macha allah waaye di fàttali aussi que les au foyer am bant moom itam nekk ci néegu sëy waaye teewul mu def li nga xamante ne moom moo di liggéey bi juste pour savoir une passion waaye donte passion li ci gën a am solo mooy daf ko jàng jàng ba xam li nga xamante xamante ne moom moo di BTSM ginnaaw bu mu def li duppee pratique parce que c'est euh, très important parce que mécanique mu nekk liggéey boo xamante ne boo ko jàngee bu fekkee defoo li nga xamante ne moom moo di pratique doo ci mën a génn mm-hmm. donc mu jaar nag ci ay société yu bare lim na ko ci li nga xamante ne moom moo di élément bi yàlla may ko dem ba mu nekk li nga xamante ne moom moo di chef de garage imagine leen ci benn société nga nekk jigéen di diriger nag li nga xamante ne moom moo di ay góor mu nekk quand même quelque chose boo xamante ne dafa metti mm-hmm. si loo doon jigéen jigéen parfois boo nekkee ak sa ay góor il faut nga liggéey li nga xamante moom moo di ay góor mooy lu ñu doon wax tout temps góor ak jigéen ñoom ñoo war di ànd parce que yenn yëf yi euh, ci lu wàllu mécanique day dëgër day diis mhm. et puis góor moom moo ko mun a jàppale donc góor moo leen di jàppale parfois les petits inconvénients mooy égo yi am mhm. entre góor ak jigéen parce que léeg-léeg da gis góor bu gisee jigéen ne non kii déedéet mhm. du ma kii mais quand même comme lu mu koy waxee foofu ci la muus de amee solo ndax di nga xam li nga xamante ne moom moo di diplomatie négocier jàppanteeg nànk mi ci fulla ak personnalité ba li nga soxla ci ñoom ñu def ko parce que yàlla dogal na ni yow yaay seen jiit comme ni ñu ko waxee nag mu ibbi li nga xamante moom moo di société am allah am ci ay employés mm. mais leneen li ci gën a am rek mooy delluwaat comme ni ma ko waxee mu nekk jigéen buy sëy mm. leneen liñ ko ci munti biñ ci waxtaanee lan la wax ni que belle famille am dañ ko jàppale bu baax mm. loolu aussi jigéen da koy soxla sa donc moom muy sant bu baax ñi nga xamante ne moom moo di belle famille am rawatina gorom parce que ci biir déglu boo leen ko dégloo dafa ñàkk waajuram bu jigéen mhm. mais gorom boobu tey jàppale na ko di ko jàppale doomam di ko jàppale ñi nga xamante ne moom moo di ci liggéeyam pour réconforter ko parce que leneen li may wax aussi ci lu gën a am importance ci nit mhm. asatuma laak sax jigéen mooy nekk ak sa waajur bu jigéen mhm. boo nekkee di sëy léeg-léeg soxla di déglu sa kàddu yaay bu mettee mhm. mu di la dëfal di la yee di la yedd nga mun a toog mais boo ko amulee day metti ba pare li ci gën a metti mooy nga toll ba am doole war teral sa ndey te mënuloo ko parce que moom nekkatu fi moo tax na gars yi gën a góorgóorlu waslu àq bay seen waar pour gën a jàppale seen waajur yi bu fekkee ni ñi ngi fi leneen aussi loo xamante bëgg naa ko wax rapidement rek mooy ce métier là li mu ci déplorer rek mooy les femmes qui font tout le temps la mécanique bu ñu demee ba jàng ba pare rek ba pare macha allah ak ni mu méttee bu ñu sëyee rek dañuy pousse mm-hmm. affaire bi donc elle lance vraiment ce message là ne c'est pas parce que que da nga rek que war a bàyyi mm-hmm. job boobu déedéet mën nga liggéey di gérer sa sëy di nekk une bonne mère de famille ba pare chef d'entreprise que nu mu waree donc message boobu tey c'est pas facile euh, du lu nga koy gis chaque jour mm-hmm. des femmes mécaniciennes. Mm-hmm. donc euh, euh, Mado muy man muy Kalz ku ci paan da ngay jaaxle da ngay obligé woo ki nga xamante ne mooy sa mécanicien. Mm-hmm. donc su ma gisee ay jigéen yoo xamante ne dañuy nekk si ça. <laughs> non mais non mais elles sont à féliciter macha allah. jàppal waa ji paan bi nag na arrêté na laal bu bees. damay paan rek billaay c'est pas normal mais juste quand même remercier équipe bi ma koy defal sa su ne. parce que c'est une équipe donc monsieur et madame Touré ak ki nga xamante ne moom moo di El Hadj di ma montel ñoom maa ngi leen di bëggee bu baax Pape Samba génnal ci samay wax. jërëjëf kon xam na xam fii laa ko kii nampalee ngi noonu et puis ci gën a neex mooy euh, seen une suite logique rappelé waat ko bi ñu tàmbalee euh, y a deux samedi euh, tey ñu yegg si fii xam naa ni am na ñu ko jàppee sax film li ngay def nii parce que tellement c'est c'est intéressant mën ngeen ko retrouver également sur la chaîne YouTube de SSP bu ngeen fa delloo di ko seetaanaat intégralité bi yëpp pour mën a comprendre fi Mado jógee am na yeneen surprise également yoo xam ne dencal nañ leen ko ci euh, rubrique boobu il est exactement 11 euh, heures passées de quelques minutes ñu ngi leen di gunge ba tey ci euh, weekend stade dans quelques instants suñu invité yi dinañu commencé ñëw gunge leen ni mu ko defee noonu la ko Samira defee moom aussi tàmmal nañu di ñu andil ay ndaanaan yoo xam ne tey dañu doon dara mais bi ñuy tàmbali daanaka dafa metti woon lool maanaam bi ñuy jógee di def li ñuy def fi ñu jógee amul woon dara tey ñu doon nit ñoo xam ne mën nañ leen a roy Samira lan nga ñu andil. alors dama dem euh, tout simplement seet si euh, seeti une brave dame comme dañ nekk ci mois de mars bi ma dem une brave dame elle se nomme euh, Fatim Dafé madame Lo de la marque Fancy Team donc elle m'a raconté un peu son parcours et tout ça donc dañuy dem xooli élément bi on revient tout de suite pour mën ko ñëw ci seen rubrique je suis partie de rien alors tey nag maa ngi fii cité Keur Gorgui euh, seet si une dame de fer euh, ndax mois de mars lañ nekk toujours donc euh, day baax ma ñëw seet si dame yi nga xamante ne elles sont toujours à l'ombre pour découvrir li nga xamante ne ci entrepreneuriat bi ñu nekk donc tey nag ma ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Fatima alors nag pour ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy carrière am et surtout jaar-jaaram mais laata boobu je vais la saluer bonjour Fatim. bonjour Samira. ça va bien ça va bien merci. alhamdulilah. alors euh, j'aimerais un peu qu'on parle de ce projet li nga xamante ni mooy Fancy parce que euh, projet bi noonu la tudd boutique bi noonu la tudd mais bien avant cela Fatim mooy kan ak ci lan la jógee avant muy créer li nga xamante ni mooy Fancy Team sama tour Fatim la madame Lo Fatim Zora Dafé euh, je suis euh, sénégalaise de métissage euh, malien et marocain. Je suis euh, partie en fait dans l'entrepreneuriat avec le soutien et l'aide de mon mari qui au départ voyait en moi euh, cette euh, faculté à créer. Euh, je créais des collections et j'organisais des ventes privées autour auxquelles j'ai invité euh, les gens à venir voir éventuellement et acheter. Et, et c'est parti comme ça de bout en bout de bout en bout. Mais est-ce que euh, peut-être stylisme fiirul parce que maa ngi lay dégg ci biir wax nga naan que tu as démissionné est-ce que du euh, métier bi moo la accaparé ah oui parce que en fait il a fallu me def benn choix parce que dama nekkoon devant un dilemme donc il a fallu me def benn choix et j'ai préféré me consacrer à ma passion qui est le qui est le stylisme et et, et dans laquelle je m'épanouis complètement en fait en créant en innovant en tout en étant à la recherche parce que pour moi c'est c'est quelque chose qui est en moi en fait. Je n'ai pas étudié dans ce sens, mais je j'ai un don. selon toi est-ce que euh, neex na parce que am na ñu lay seetaan yoo xamante ne certainement bëgg nañ dugg ci euh, li nga xamante ne mooy stylisme est-ce que yomb na est-ce que neex na contrôler déjà. en fait je pense pas que stylisme la en tant que tel moo neexul Je pense qu'entreprendre mon, mon métier, en fait, euh, c'est le fait d'entreprendre mon métier. On a toujours des défis, tous les jours que Dieu fasse. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, euh, il faut toujours savoir euh, garder la tête haute et puis avoir des, euh, les nerfs solides pour affronter tout ça. Parce que chaque jour, dinga am lo xamanteni metti na la mais aduna moo mel nii en fait y a rien qui est facile donc euh, c'est pas propre au stylisme c'est propre à l'entrepreneuriat. et d'où vient le nom Fancy euh, fan la jógee. alors Fancy mooy euh, tout ce qui est euh, en fait c'est un mot en anglais qui a plusieurs euh, qui euh, significations mais en fait c'est tout ce qui est merveilleux tout ce qui est fantaisie et je fais des choses tellement éclectiques. tellement différente moo xam soo gisee benn modèl fii nga gis beneen modèl fii nga naan ah en fait damay essayer embrasser ñëpp en fait. xale yu góor yi dinañ ci gis seen bopp ci biir Fancy Team ou bien. ah xale yu góor yi dañ si gis seen bopp bu baax a baax <laughs> macha allah euh, waaw maa ngi leen damay ñaw a jigéen ak góor yi et góor yi ak jigéen yi c'est très apprécié vraiment j'invite euh, waa Sénégal à venir découvrir alors Fatim euh, juste une question bu fekkee am nga benn message boo mën a lancer euh, jeunesse bi nga xamante ne ñi ngi jàkkaarloog yow di la seetaan euh, ci li nga xamante ni mooy entrepreneuriat parce que am na ñu bëgg a dugg ci liggéey mais xamuñu comment faire lan nga leen di wax. alors man pour entreprendre comme conseil du ma leen mën a jox c'est li ngeen di entreprendre il faut mu am ngeen am si passion. Mhm. c'est très important parce que passion moo lay mun téye ci entrepreneuriat. Euh, patience passion et persévérance donc euh, ñun ñëpp dañ si war a jàpp pour li nga xamante ni bu fekkee tey bëgg nga nekk ci li nga xamante ni mooy entrepreneuriat da ngay jàpp gëm bopp et que tu crois en toi et lépp dina ñëw donc Fatim c'était un plaisir ma ñëw si la mu nekk une brave dame aussi et franchement boutique bi magnifique na nice na et tout ça donc xam naa dinañ di ngeen am occasion ngeen ñëw fi doxantu mi ngi nekk fi nga xamante ni mooy si Kër Gorgui ci rond technique bi nekk toujours avec moi Karim Zal et donc euh, macha allah quoi Euh, mi ngi noonu élément bu am solo aussi euh, di wane toujours rek euh, jigéen ñi ci jàmbaar gi nga xam ne mi ngi ci ñoom Samira tey loolu la ñu àndiloon ci marque boobu nga xam ne mi ngi tudd Fancy Team c'est ça Fancy Team effectivement mu nekk une femme une maman une épouse une dame de fer donc comme j'aime l'appeler mu nekk jigéen bu jàmbaar bi ma demee seeti ko nag moo génn fii moo ma génnee fii ba pare elle a un peu elle a un peu elle a un mal avec le wolof donc dama ko force nag émission bi dañ <laughs> wolof parce que Weekend Stars ñëpp koy seetaan et ah, tout ça donc voilà mu expliqué ma jaar-jaaram euh, du coup donc da doon liggéey mhm. après par la suite mu inspiré wu par li nga xamante ni mooy stylisme mhm. mu daal di fay jóge daal di démissionné mu jaral ko mu démissionné ah. pour euh, topp li nga xamante ni mooy stylisme je lui ai même demandé la différence entre stylisme et couturier mu ne ma couturier en général moom dañ koy jox euh, modèle mhm. mu ñaw ko mais stylisme moom day dessiner day dem ci base bi dessiner tout ce qui est la création et tout ça inspiration bi dem seeti ko parce que euh, man sama sama sama passion bokk na aussi ci li nga xamante ne mooy stylisme lu ma yàgg bëgg a def la depuis toute petite donc euh, euh, bi ma fa demee aussi elle m'a appris pas mal de choses mu une femme vraiment vraiment magnifique et aussi comme ni mu ko derrière toute à côté de tout homme il y une grande dame euh, jëkkëram jàppale ko aussi ba mu euh, def li nga xamante ne mooy projet am mm-hmm. par la suite bi mu réussir mu daal di koy delloo xaalisam donc ça mm-hmm. c'est c'est c'est une manière de dire que euh, jigéen bu ci nekk mën nga tey sa jëkkër jàppale la mm-hmm. boo demee ba affaire yi sotti nga daal di dem daal di koy delloo pour wan ko ni que jom baax na ci góor baax na ci jigéen donc elle c'est une femme tellement intéressante que voilà donc elle a utilisé trois mots que j'adore moi euh, la passion lépp looy def day am passion il faut aussi de la patience mais surtout de la mm. persévérance mais xam nga ni Kals euh, du ma du ma dem benn yoon te wanewu ma li nga xamante ni moo moo ma fi génnee sincèrement c'est un style c'est un style que je que que, que je croyais que du ma mës a neex sincèrement c'est un style boo ah, xamante ni c'est une combinaison ma chérie C'est une combinaison. Ah, Machallah. Donc, et puis tu vois le, le truc large là, ah, là, là. Ça, te met tellement à l'aise. Donc, euh, mon nek. Euh, en contact. Oh là là En tout cas, c'est elle qui l'a fait. Amna yenen. En am na yenen ah, <laughs> papa Samba wax sax yow kooku moo ko jur <laughs> am na ci am na am na ci wàll parce que bi ma fa demee euh, y avait ça amee aussi am na ay am na des des des des particularités ay pagne et tout ça vraiment c'est de l'art c'est de l'art et aussi euh, moom yemul ci ñi nga xamante ne mooy xale yu jigéen yi rek dafay ñëwal ñi nga xamante ne ñooy góor ñi donc j'ai vu de très belles choses yoo xamante ne je vous promets et surtout ça tombe bien que euh, mu nekk li nga xamante ne tey mooy ouverture bi donc mi ngi nekk cité Keur Gorgui bu ngeen ma suivre ci sama Instagram Fanta Samira Koulibaly euh, di ngeen gis li nga xamante ne mooy ouverture parce que je compte y aller une femme adorable ñëw da nga bëgg lu baax comme man dem leen foofu waaw exactement comme ça bu ngeen sañsee bu original ñu xam ne made in Sénégal effectivement voilà loolu dama leen ciy conseil donc je la remercie de passage elle <laughs> avec son mari aussi voilà d'accord donc mi ngi euh, mi ngi noonu merci beaucoup Samira c'est tellement important et puis mën ngeen revoir ces images sur notre page euh, YouTube bu SSP surtout euh, ci plateforme yi nga xam ne ci lañ leen di proposer nos rubriques en mode replay mën ngeen ko seetaanaat di ko gërëm bu baax ci loolu fàttaliwaat ni ñi ngi ànd ak ba tey Adja Wessel suñu yaay ji nga xam ne moo ñuy gunge ci émission émission bi euh, bu ngeen gisee mu yaaññi nii rek xam leen ni moom la voilà muy fii ak fële. voilà ci mooy kan mooy anniversaire. ñu ngi ciy ñëw anniversaire bi ñu ngi ciy ñëw. <laughs> anniversaire bi ñu ci ñëw ci kanam ñaari surprise ah la la la ñu ngi ciy ñëw léegi. Adja Bessel <laughs> mu mu mu Serigne Fallou donc mi ngi nekk HLM euh, comme ni ñu ko waxee chaque fois ci mi ngi nekk plutôt euh, CBA bu jëppal numéro de téléphone bi xam naa ne yaa ma ko gën a miin ndax gis naa dang fay doxantu fa yi. 32 teg ci 32. voilà daal mu jox la notice bi. jeex na donc mi noonu mooy Adja Vessel dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti en attendant nag ñu gunge leen ba tey le temps de recevoir nos invités euh, sur ce plateau démb aussi ci actualité wu musicale bi euh, dem nañu doxantu xooli ñi nga xam ne euh, ñoom it ñi ngi ci waajtaay yi xam nga bu ñuy jublu koor gi ku ci nekk day proposer spectacle avant ñuy dem ci koor gi mais bu ñu paree également am na yeneen yu ñuy waajal xam nge ni at bu nekk nag seen talent démb euh, doxantu nañ ci benn répétition boo xam ne euh, euh, c'est un jeune qui a beaucoup de talent Aubry Daman dem nañ fa démb fekk ko muy préparé d'ailleurs da doon sax joué démb ci benn place bu ñuy wax héritage ñu seeti ko xool ni mu toogee woon démb ak bande bi ah, seq nañu tuuti waxtaan ak moom pour xool également actualité am parce que il prépare son premier album officiel tuddee ko Bantubale regardez Allez, bienvenue à toutes et à tous. Euh, comme nous le actualité euh, musicale qui euh, Weekend Start. Euh, après plateau bi, on se déplace un peu pour voir nos artistes, et puis voir cette actualité euh, durant tout ce mois. Petit week-end, avec l'un des meilleurs de sa génération. Il s'appelle Aubry Daman. Aubry, salam alaikum. Salam baax Kaz. C'est un plaisir de te retrouver. Hein? merci beaucoup tout le plaisir pour moi xam nga loolu sama grand nga te j'en profite aussi pour nuyu mboolem ñi seetaan te TFM e di kontaan trop tamit wax dëgg yàlla ci dalal leen fii ci studio bi jërëjëf. macha allah euh, il est jeune mais il a beaucoup de talent euh, on sait que yaa ngi ci sa yoon boo bokk léegi avec beaucoup de patience euh, talent bi performance live yi ngay def souvent les gens se posent la question mais waa ji fan la nekk mais on sait que am na ay endroit yu ñu di fekk là maa la fekk en en répétition daf mel ni yaa ngi benn liggéey. Effectivement, liggéey je pense que cette année, on a pris presque la moitié de l'année pour pouvoir travailler déjà a génn cette semaine, mais en plus aussi mieux travailler sur une performance en live. Parce que artiste live la ñu. alors là tu me parles de euh, de de d' album euh, un album boo xam ne yàgg nañ ko xaar euh, ça a pris combien de temps pour nga liggéey ko. waa ça pris une année parce que lan moom moo tax par rapport ak liggéey bi ñu nekk album la boo xamante ni vingt quatre titres la mais di génn ci trois séries bi ci njëkk mi ngi tudd Bantu Bale moom dina génn incha allah d'ici la semaine prochaine beneen bi dinañ ko am en décembre ak beneen bi ci topp incha allah pour le mois de juin prochain. loolu mën a xaar ci album boobu. waaw lu bees nag parce que Aubrey Daman aussi l'artiste qu'il est peut-être mën naa ni am na benn tuuti multipotentialisme bu ci nekk waaye aussi am na créativité damay bëgg di def ay recherche di xam yeneen sonorités yi que ça soit fii au Sénégal wala au niveau de la sous-région ah mën a xam Mali mën a xam yeneen réew donc du coup je pense que recherche bu bëri am na ci. alors euh, euh, pour aller rapidement ci li nga xamante ni moom moo ñu fi déjà andi. performance live bi dañu gis ni da nga bokk ci artistes yi nga xam ne dañu ko ñeme c'est-à-dire que de jouer tout le temps en live li ma wax ni yàgg na man bi ma ko commencé xam ci yow qu'est-ce qui te motive à à faire ce ce live à chaque fois. oui live comme le mot l'indique live dafa réel waaye c'est maintenant waaye te man doomu aadama personnellement bi ma doon man dama bëgg di am contact ak ñi may waxal dama bëgg di am contact ak l'énergie. et musique je pense que nekkatul léegi rek ci nekk ci ginnaaw studio wala playback comme comme li ci ëpp li koy gisee mais man live ci la tàmbale depuis bu may nekk xale ba léegi. j'aime bien le live j'aime bien jouer en live moo xam micro ou sans micro mais j'aime bien partager parce que li may def yëg-yëg la ci sama biir xol. donc dama koy partager et partage boobu noonu parfois mënoo ko am d'une manière un peu virtuelle mais live. alors la joie également que on dirait que background bi wala le staff a un peu changé. maa ngi sant bu baax sama benn papa boo xamante ni mu ngi jàpp ci suñu liggéey depuis très longtemps mais wax dëgg yàlla depuis bi ñuy wàcc album bi ba léegi moo nekk suñu ginnaaw j'en profite pour le remercier monsieur Cissé loolu lu changé la muy équipe parce que boo bëggee def te li ngay def nga vraiment nga war ko teg ci yoon. il faut, de faut mooy kàddu yu mujj yi ak le message à l'endroit du public. di remercier ñëpp te di ñaanal ñëpp jàmm ju sax dàkk bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa ñi ngi ñaanal tamit ñëpp ñu am xéewal ñi nga xam ne dañoo tëdd ci l'hôpital yàlla saa borom fëgg seen bopp maa ngi ñaanal jàmm jàmm jàmm. faale wul man mi mali merci beaucoup grand Pape Cissé ñu ngi koy gërëm bu baax moom mi nga xam ne moo yombal euh, waxtaan bi ak Aubry d'ailleurs je rappelle que l'album sera disponible la semaine prochaine bantu bale la ko duppee album la boo xam ne euh, daf ko nar a génnee ci euh, ñetti pàcc da koy génnee avant ñuy woor bu ñu paree en décembre am na beneen et puis bu décembre jàllee am na beneen parce que c'est un album bu mu voilà ñetti pàcc comme ni ma ko waxee Aubry Daman a d'ailleurs représenté le Sénégal de Voice Africa il a une très nice donc Obli mm. d'ailleurs sax dinañu offrir certainement benn live euh, sous peu de temps fekk si ñu ci plateau bi ñu gën a waxtaanee euh, album boobu commencé nañ nag recevoir suñu invité yi sur ce plateau oui. yow wax nga ko man fan sam la <laughs> wax naa ko ne ko da nga bëgg. wax nga ko <laughs> wax naa ko ko. xam nga kii as the best la bëgg ak Obli. Ah, bëgg de voilà déglu. mais parce que tout simplement il est original. ba pare li mu wax euh, noonu c'est hyper intéressant moom ci live la gën a mënee. Mm-hmm. il faut nga dem nag fekkee ko pour comprendre ce qui se passe donc il est c'est c'est une personne exceptionnelle man moom I love you so <laughs> d' accord ayca ñu recevoir suñu invité yi euh, Samira. alors euh, tout justement dañu am euh, gan boo xamante ni mi ngi jóge ci université polytechnique de l'ouest africain l'UPOA donc euh, mi ngi existé depuis 2006 donc ça se trouve aux Almadies donc tey nag dañu ñëw pour waxtaan ak ñun li nga xamante ni mooy seen programme et tout ça bonjour prenez votre micro s'il vous plaît. bonjour. Ça passe Oui. Ok, d'accord. Bonjour, je suis <laughs> Yvette Franciane Collinan, de la promotion de l'UPOA. Donc aujourd'hui, nous, sommes sur votre plateau. Nous vous remercions pour l'invitation. Il s'agit d'une université qui offre diverses formations, à savoir l'ingénierie biomédicale, l'ingénierie civile, l'ingénierie financière. Donc contrôle de gestion. D'une part, les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est l'ingénierie biomédicale, qui est une, filière très florissante. l'Université polytechnique de l'Ouest africain est la première université en Afrique et au Sénégal à offrir le diplôme d'ingénieur. Je ne parle pas d'un niveau technicien parce que nous avons diverses universités qui, donnent, euh, qui, des diplômes de, technici, de technicien. Mhm. Et nous, l'UPOA, au, au, bout de cinq années, vous obtenez votre diplôme universitaire d'ingénieur biomédical. Mhm. Euh, nous sommes situés aux Almadies. Mhm. Nous avons actuellement ouvert une nouvelle filière pour les professionnels. Ça s'appelle une licence professionnelle en biomédical. À la fin de cette, euh, vous pouvez à cette formation suite à un diplôme d'universitaire de technicien. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait deux années spécifiées, par exemple, en physique, en chimie, en mécanique, mm -hmm. et par la suite, vous voulez faire du biomédical. actuellement, nous allons ouvrir cette filière qui se rattache toujours au biomédical, mais pour permettre à des professionnels d'intégrer cela. Donc euh, les cours vont se faire en ligne. Nous avons des professeurs qui interviennent d'un peu partout. Ils viennent de France, ils viennent du Canada. Nous avons des enseignants-chercheurs qui dispensent les cours chez nous. Mhm. Et le système éducatif et administratif est ce qu'il y a de meilleur. Mhm. Nous avons une biodiversité dans l'université. Mhm. Je suis sénégalaise mais d'origine, mais je suis au Gabon. Ah. nous avons une diversité d'étudiants. gabonais, des étudiants Donc il y a cette biodiversité. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler de notre journée d'intégration. La journée d'intégration est une journée qui permet d'intégrer, de, faire rentrer dans notre grande famille les étudiants de première année. Généralement, ce sont les étudiants qui viennent pour la toute première fois à l'université. C'est-à-dire, ils viennent de s'inscrire. Ce ne sont pas toujours des étudiants de première année, ça peut être des étudiants eux, leur pays. Mhm. Nous faisons un défilé de nations. Ils vont mhm. nous présenter leur pays, nous présenter, le présenter au, travers d'un art oratoire, mhm. le présenter au travers de leur danse traditionnelle, le présenter au travers de leur danse moderne. Mais aussi, nous avons un moment de partage culinaire. chacune de ces nationalités va exposer un plat de chez lui. les Sénégalais vont par exemple exposer le tchèp, les Camerounais vont exposer leur poulet DG, nous au Gabon, on je dirais, un plat de, un plat de, de okay. Donc, il y a toute cette biodiversité. Mm-hmm. Donc, ça a commencé hier. Il y a eu une partie qui a été décernée à des jeux ouais. pour pouvoir... Euh, il y a eu un festival de couleurs pour D'accord. intégrer tout le monde. C'est un peu cela. Parfait.

Donc mmh. l'université a une hymne euh, que nous tous, nous, nous, nous maîtrisons, nous connaissons, c'est notre mmh. symbole. Mmh. Le discours du président de l'université, El Hadj Ibrahim Assal, okay. oui. le défilé des nations, mhm. le défilé des différents clubs. Nous avons différents clubs, des clubs de sport, des clubs de musique, des clubs de théâtre. Mm -hmm. Le défilé Miss et Mister que j'ai initié en, durant, durant mon année au BDE, au bureau des étudiants. Okay. Et l'aspect dégustation, le manger, on ne va pas oh, passer la journée, tout simplement. Exactement, il y, a, il y, a cet instant. La deuxième partie du mm-hmm. défilé, la remise des prix, car il y a des prix à la clé mm-hmm. pour motiver les étudiants, la délibération et le grand sabbat aimé par le euh, exactement, le grand sabbat. C'est la partie la plus intéressante. Oui, c'est la partie. Gabonaise qui danse le sabbat. j'avoue et demain. Et vous êtes tous les bienvenus. N'oubliez pas vos bavettes, vos masques. C'est oui, important. Et ça. c'est euh, pour les étudiants qui sont, euh, pour ceux qui viennent de terminer euh, le baccalauréat en série T ou bien en série S tout le monde peut venir. Donc dépend exactement du type d'orientation. Si la mhm. personne retrouve exactement ses filières à notre université, il peut postuler. Et pour plus d'informations, vous pouvez faire un tour sur notre page sur notre site mhm. internet. C'est www.upoa.edu.sn. Vous pouvez aussi tout simplement taper UPOA. Okay. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous encore. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis, Merci. tout à l'heure, euh, aujourd'hui, on est le 19 déjà. voilà, donc on rendez-vous euh, pour cette journée. Alors, ñu fàttaliwaat ni ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci Week-end Stars dans quelques instants nag dañuy commencer recevoir suñu invité yi il est là avec nous daf ñu andil vidéo bu bees regardez et puis ñu dellu si recevoir ko sur ce plateau.